wahunakum Weru promotion ambition Keparu Nabi La révolution de l'art islamique Keparu Nabi Di doxitaru l'islam Keparu Nabi Di sagu l'islam Ku wax sehru ramadan Wax keparu Nabi Ndogu pour tous Ben bankas taxawal ko dialogue islamo-chrétien si teewaayu al imam oustaz Alioune Fall si teewaayu le ak kenn si doomu Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni al imam oustaz Alioune Fall yëkkati fa ay kàddu yu am solo. ñu ngi leen di nuyu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. muy acte bu rafet acte bu yàgg it ci àdduna ci jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga xamante ni dafa nekkoon nag ñu nga xamante ni gëmuñu diineem nekk ci beneen diine waaye da na yaatal téye leen ànd ak ñoom loolu moo indi njàngale boobu moo rot ba tey mu wane ni ñépp la islaam sagoo wane ni ñépp la islaam yaatal rawatina nag yonent bi jàngal ñu ni mbooleemi yonent yépp na ngeen leen gëm laa nu farriqu bayna ahadin min rasul ñun ci ñun ku weddi ab yonent yéeféer ngay doon ci ñun ab jullit sañte weddi benn yonent mbooleemi yonent yu nekk ci kaw suuf yépp yépp lañu yonent bi wax nañ leen gëm nañ leen topp nañ leen digal te buñ leen ŋàññ loolu moo indi suñu jataay bii tey ci diggante islaam ak ñi nga xamante ne mooy ñu dul jullit kon loolu nekk na lu rëy acte bu rafet ñu leen ci gërëm na di leen ci sant ci lii nga xamante ni moom lañ ñu organiser muy ndogu fekk si ñu ci di ñu ci jàppale di ñu ci ñaax ànd ak prêtre bi mu ñëw teew fii set prêtre ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay tatagal ñu ngi lay ubbil bunt yépp di la dalal fii nga xamante ni fi lañ amalee ndogu bi ak kilifa gi nga xamante ni mooy doomu Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni kon ñun ñëpp ñu ngi leen di dalal te xam ni lii amul fenn fu mu xaj lu dul jàmm ndax jàmm mooy bunt bi nga xamante ni bu ubbeekoo ku ne mën naa def li nga bëgg ku ne mën naa def li mu gëm ku ne mën naa def li mu xam te ku nekk ak jàmmam jàmm jooju nag mooy jàmm ji nga xamante ni ñu ngi ciy woowaa adduna yëpp

avec euh, la communauté musulmane ce grand moment de Dogou. Un grand Dogou, c'est le titre qui a été donné à l'événement d'aujourd'hui. Un grand Ndogou parce que ça nous représente, ça réunit chrétiens et musulmans ensemble. Un grand Dogou parce que en ces périodes, nous marchons ensemble, chrétiens et musulmans, sur le chemin du jeûne et de la pénitence. Ramadan,